guerre nag euh, du matériel rek a koy def ay homme moo mais est ce que bu koy def nii guerre classique bi bu yegsee ba ci capital bi ñu koy xaar mhm. kii pour teg ci loxo mu jafe ko noonu mhm. est ce que foofu xëy na du beneen niveau lay laaj parce que c' la capitale c' vrai que ne xeex ci capital ak lu dul mhm. loolu dina jafe même bu fekkee yaa ngi wax euh, ci wàllu xarala yi ku fàttaliku Edward Snowden ak xarañteem te buñ ne euh, c' est un russe muy mel ni kon côté boobu tamit yóbbulu kon euh, armement yi ñu wax nii jàppale nañ ko lu réel la. jàppale nañ ko lu réel la lu lu. lu réel et puis sax euh, fan yi su ngeen ko xoolee bu baax hmm. am na ci euh, dëkk Europe de l'Est bi ñoo xam ne ñu ngi commencé négocier ci suuf hmm. pour que nan la ñuy def ba Union européenne ak OTAN accepter adhésion boo xam ne depuis presque dix ans ñu ngi ko teg ci table parce que loolu rek moo leen mën a permettre ñu leen di renfort parce que guerre bi tant que ñu koy bàyyi ak euh, Ukraine mm. euh, russi moo ko mën mais bu ci autant duggee muy Amérique ak ay ñoñam loolu day dekkaat ci beneen dimension. mais mais lan moo expliqué loolu lan moo expliqué le fait que réew yu bëri. Mhm. di daw bëgg a adhérer à l'OTAN. waaw parce que bëgg xeeñtu mbirum démocratie que leneen lan la. Oh, euh, euh, maanaam à la Poutine daf leen neexul wala euh, façon boobu wala lan la. non non c'est que hmm. le modèle dominant cest dire que benn bi il hmm. y a des considérations d'ordre historique idéologique bi ci des c'est des considérations économique idéologique mooy deuxième indi traumatisme ci pays de l'Est yi euh, parce que da ngay gis ni euh, euh, même Hitler bi muy dugg si foofu mm. parce que dëkk yooyu dafa bëri ay communauté juive dañu bëri mm. xam nga booy xool Union soviétique comme Kiev Euh, mooy euh, fief euh, lu ñuy tuddee le catholicisme orthodoxe. Mm. maintenant ci li muy nekk fiefu catholicisme orthodoxe yëpp dafa am aussi de fortes communautés juives d'ailleurs sax président Ukraine Volodymyr mm. Zelensky. c'est un juif même s'il se dit non pratiquant. non pratiquant donc da ngay gis ni ñoom pendant longtemps saar. Euh, le roi bu nekkoon russe ñu tuddee ko le le tsar Alexandre. Hmm. Euh, moom dafa choisiroon comme euh, le catholicisme orthodoxe comme religion d'État. Hmm. donc depuis lors nag képp ku fa. te judaïsme ñoo fa nekkoon. donc ñoom dañ leen a yàgg buntu xatal ci ay seconde appel des des pogroms. Euh, bi deuxième guerre mondiale ñëwee it euh, Hitler ñëpp xamoon nañu moom il avait euh, des antécédents avec les juifs hmm. donc bu mu ñëwee sonal na mais tamit bu ñu fàttee que Staline Staline ba mu fa nekkee dafa defoon ay révolution agricole qu'on appelle les Solkov et les Kholkov hmm. mais loolu bi mu koy def pays bi ci gënoon a loru mooy Ukraine bi pays yi ci gën a loru loru mooy pays ay Biélorussie et cetera Lettonie Estonie mm. donc nag ñooñu dañu am benn traumatisme boo xam ni euh, ñoom seen foi da leen a jaral lu ne maanaam euh, juif yi te euh, seen antécédent historique bi ñu am. Hmm. mooy fële moom diine diine du fa am. boo hmm. nekkee ci monde communiste diine du fa am état bi mooy doon diine. donc ce qui fait que dans l'histoire ils ont eu tellement des mailles euh, avec euh, Union soviétique. te ñoom hmm. ñëpp daanaka ñëw bokk même askan ñoo ñëpp ay slaves nañ. mais nag historiquement ils ont eu des rapports telement conflictuels ba nga xam ni ñoom lu leen gënaloon tey ji mooy ñu orienté wu vers le bloc démocratique est loolu may les raisons. politique et mm. idéologique mm. maintenant mu nekk raison euh, yeneen yi mooy raison économique parce que aujourd'hui euh, soo boolee Amérique boolee Union européenne mm. li ñu mën a teg ci taabal bi Russie rek mënu koo teg ci taabal bi te comme dëkk yooyu dañoo jël seen indépendance très bien te bëgg daw te yàggoon ñu leen di noot ñu bëgg a noyyi tuuti ñoom tamit dañoo bëgg a namm démocratie donc tourné wu fële te da ngay xool ni ñoom tamit euh, seen dëkk yi li ñu jot am kës néew ko ressource bu ñu tourné ci bloc ci la ñuy ëppee marché. Hmm. que ñu tourner ci russe parce que bu dee Union soviétique benn marché nañu am Union soviétique. Hmm. mais bu dee fee déjà euh, bu dee Europe rek am nga marché de 27 états. plus les États-Unis et sans compter que comme États-Unis mooy incarner euh, le modèle dominant. Hmm. comme le modèle anglo-saxon mooy incarner le modèle dominant de la mondialisation donc ñoom dañuy amaale benn genre xeetu protection. maanaam daal ñoom ñu nekk côté dëkk yooyu yëpp xam nañu jël seen indépendance di xool côté ouest. ñoom daal euh, seen xel dafa dalul. ci Union soviétique. Chauvier ndax fi ñu a euh, jaar ak. Euh, justement balaa ma ñëw ci mbisaan euh, beneen question ma bëgg dugal ci moom it mu war a ñëw ñun ci yeneen développement yi nga xam te ne jot na ko préparé. mooy sanction économique yi taxul Poutine dellu ginnaaw. lan la dañ ko war a gën a mën a corsé wala sànq mbisaan mu ngi ah. junj yoo xamante ne. <laughs> wax na le ministre français. bi yor ah. wàlla koom. Ah. ni mbébét bi mooy. du yàgg dara ñu nërmeelal koom. non non ñu dañ koy wax rek mais mënuñu xam nga lu tax. parce que Union européenne dafa euh, dépendant trop euh, ci euh, Russie ci gaz. ci gaz xam nga fan. sanctions yi sax déjà boo xoolee 40 pour cent consommation de gaz. Euh, boo xam ne Union européenne doon notamment l'Allemagne l'Allemagne sax moo ci gën a sonn euh, ñoom Union soviétique lay jógee te bu jógee Union soviétique euh, Ukraine lay jaar mm. ci gazoduc yi beneen bi mooy Ukraine ci boppam 40 pour cent mm. des fruits et légumes des céréales yoo xam ne Union européenne da koy consommer Ukraine lay jógee même blé bi ngeen di wax ni Ukraine lay jógee jaar France ñu ngi koy doog a indil fii wala mu jóge Brésil donc daanaka Ukraine très bien moo tax Ukraine mooy le grenier de ce qu'on appelle l'Europe centrale moom moo leen di dundal donc da ngay gis ni euh, gaz moo yor énergie te hmm. énergie moo yor économie euh, dund gi euh, lekk geeg yooyu lu ci bëri fële lay jógee hmm. donc ñoom te Allemagne mooy première puissance Union européenne te Allemagne moo gën a exposé la moom la économie gën a dépendre hmm. ci Russie ba nga xam ne Allemagne sax moom benn instant da ciy xaw a am nu muy nu muy toogee boobu mooy premier bi maintenant deuxièmement aussi Amérique moom da ciy bëgg xëpp kaani xam nga lu tax. Hmm. parce que euh, Amérique euh, possibilité bu mën a am ba noot Europe Union hmm. européenne nekk seen grand frère. seen gendarme hmm. mooy l'OTAN bis bu lootaan amatul amatul daanaka ñoom euh, euh, amatuñu soxla euh, ci Amérique parce que Union européenne dafa mel ni genre jeu de dupe la. Mm. Union européenne dafa mën nañ dafa ñëw làqatu ci Amérique à travers l'OTAN pour mu garantir ko sécurité par rapport ak Russes léegi nag en contrepartie Union européenne ubbi ay marché pour économie américaine loolu mooy deal bi ci suuf léegi nag benn dëkk bu mel ni Allemagne mm. dañu commencé tiital ñoom Amérique parce que Allemagne euh, dafa dépendant xam nga Allemagne moom amul benn ressource donc dafa dépendant tellement euh, de Russie ba nga xam ne Allemagne moom euh, gazam mi ngi ko doon jëndee États-Unis di ko mm. jëndee russe mm. léegi nag ñoom dañoo gis ni gaz bi ñu daan jëndee Amérique dafa xaw a cher mm. parce que gaz liquéfié la bi ñu jëndee russe moo gën a yomb léegi nag ñoom ñu signé benn traité ak Russie moom lañ tuddee Nord Stream boo xam ne ay gazoduc la yoo xam ne gaz bi day jógee directement euh, Russie Russie dootu jaar Ukraine. ñëw directement Allemagne léegi nag loolu arrangé wul Euh, Amérique parce que lu tax mooy euh, Allemagne su nekkee première puissance économique Europe ba pare euh, économiquement muy jëflanteeg Russie dina dem benn instant boo xam ne Russie dina ko tegal ci taabal bi mais yow comme ñu ngi def ay business mag yow yow léegi Amérique doyatoo ko dara léegi nañ gën a xaritoo kaaraange bala Amérique digoon man ma jox la ko léegi na ngay gis ni Amérique tey jii moom dafa am intérêt géostratégique pour xëpp ci kaani ba nga xam ni tey jii voilà Union européenne day continuer di am dépendance ci Amérique que mm-hmm. muy am dépendance ci euh, Russie euh, loolu moo tax euh, guerre bi mm-hmm. ku ci nekk ak sa enjeu waaw parce que tey jii li ma ci jàpp mooy mm-hmm. li xew Ukraine dafa nar nekk li reconfigure reconfigurer beneen nouvel ordre boo xam ne tey jii Amérique dina ci def tout ba xëpp ci kaani parce que de l'issue de cette guerre la oui. euh, dépendra en partie de l'accès aux États-Unis au marché européen oui. euh, mais aussi de l'accès de la la Russie dans le marché européen te bu ñu fàttee ni euh, li tax euh, Russie nekk en position de force mm. c'est que Russie euh, ni mu daan jaayee tubaab yi Union européenne mm. ci diggante bi ci vingt ans yi defar na ay relation ba jubóog Chine. waay léegi daanaka en en volume. Hmm. li muy jaay tubaab yi tubaab yi loolu lay jaay léegi Chine. nga xam ni tey jii même bu ko tubaab yi euh, euh, ñàkkalee sax moom amaat na beneen porte de secours alors que ñii ñoom dootuñu amati gaz. te dootuñu amati ay bu yàggee tuuti na kii du ko def dara dootul mën a am te loolu sax ñoom. erreur stratégique la Occident parce que Chine dafa yàgg wax ni euh, système financier mondial bi hmm. euh, dañ ko war a soppaliwaal c'est-à-dire que dollar waru nekk la hmm. monnaie pivot dans le commerce international hmm. donc ñoom dañu bëgg a proposer bi tey jii euh, Chine pays Afrique yu bëri yu muy liggéeyal dootoo soxla dollar pour def si commerce yow monnaie chinoise bu ñuy tuddee rimbim bi hmm. moom ngay fayee léegi nag ñoom bis bu ñu duggee ci swift bi ba commencé koo kii da ngay gis ni Russie day am possibilité léegi mook euh, euh, Chine te euh, ñoom boo leen boole seen économie dafay fees ba nga xam ne mën nañu créer benn nouveau système boo xam ne dollar dañ koy isolé ou bien même bu ko isolé léegi nit ñi dootuñu ko utiliser sur le commerce international te fu muy amee solo par rapport tax ñu bokk ah, moo tax gis